asalaamualeykum bokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu fii ci 2STV ci seen émission dem tey nag ñuy waxtaanee constitution ndax constitution bala bu tubaab bi ñëw suñu maam yi fi nekkoon amoon nañu constitution bu ñu daan fale ak a folle du woon rek da ngay yor jaasi ak fital mbaa ay yat pour di falu soo demee Waalo mbaa nga dem Jolof mbaa Kajoor mbaa Siin mbaa Saalum suñu maam yi dañoo amoon constitution buñ daan fale dañu ko daan fal d'une manière démocratique loolu yàgg na lool ci Sénégal constitution yooyu nag naam xëy na ci province yépp bokkuñu woon nuñ ko daan fale waaye daal amoon nañu constitution yu leer yoo xam ne dañu daan fal dañu daan folli nekkul woon nit ne ku mu neex rek nga daal di yor sa yat ak sa jaasi nekk buur. lu tubaab naan constitution judduwul ci jamono bi fi tubaab bi ñëwee ba coloniser ñu noot ñu jox ñu seen ay baax déedéet Sénégal ca cosaan amoon na ay constitution constitution boo ko déggee maanaam benn charte la. muy ndey ji yoon muy fi yoon yi tëddee li ko tënk waaye ndey ji yoon jooju day àtte cër yi seq nguur gi muy ñan ñoo ci bokk ki jiite ki nekk ci bopp réew mi nu mooy jotee réew mi nan lañ koy fale ndax dañ koy fal wala ko fal nan lay jotee réew mi nan la koy téye nu mu koy wóyale ak luy àppam lu koy ko fay jële loolu lu koy àtte te di wéyal réew ci nguur ci ci boppi réew loolu la ñuy wax constitution bu fekkee lool rek la nag Sénégal amoon na constitution ca cosaan ñun mandeng yi daañu wax charte kurukun fogan ni loolu la ñuy fa la cosaanoo seen baaxi seen seen constitution ñu koy ñu koy dendaleeg lu américains yi anglais yi di wax Carta Magna bi amoon en 1215 après la bataille de Bouvines diggante roi d'Angleterre ak roi de France John Lackland ak Philippe Auguste ba ñu leen jekkoo dañ dañuy parle ba buur Angleterre bi daanu ñu dàq ko baron yi dañuy imposer benn benn genre lu mel ne constitution ñu naan carte magna benn benn benn charte boo xam ni dañuy seddoo nguur gi ñoom parlement bi ak buur bi foofu la ñu ñoom dalalee seen constitution waaye ñun ci fii ci Sénégal suñu constitution dëgg dëgg dëgg mi ngi tàmbalee ci jamono Njaajaan Njaay dafa amoon benn charte ci jamono bu naan chart mbuyu gar wuti nag charte kurukan fugaan bi mànde ngi boobu mën koo féetalee jamonoy 1320 ndaxte jamono jooju laa la la la jamono e jamonoy Njaajaan bu muy feeñ ci Waalo bu muy feeñ nag doon doon doon waxambaane ba génn ci dex gi loolu lool historiens yi net net liñ ci lu bëri ci déggu njaa njaaseew gi ci xaar gi yéem ñëpp ba ñu jàpp ko yóbbu ko mbooyu gar yónnee ci may sa wàlli jon ñi daal am na lu feeñ daal xamuñu lan la xamuñu ni rab la xamuñu jinne la xamuñu malaaka xamuñu dafa rax seet nañ ko ci anam yi bu nekk waaye daal yéem nañu ñu bëggoon xam daal yow mi nga xam ni dund nga lu yàgg xam nga zahir ak baatin nga gindi ñu ci may sawaali jon ba mu ba mu waxtaanee ak saltigeem yi ba xaw dugg xalwa génn dafa leen njaajaan ak araafee li li kawteef la li kéemaan la kooku nag du du jinne du rab du malaaka du dara nit la nit njaay la waaye nit ku soqe ko ci bidéw bu màgg bu kawe kooku cër la bu leen yàlla baax yéen nit ñu ñuul ñi te bu ngeen sàgganee bu mu ci seen loxo yeneen réew daan daan ko jëriñoo ci la leen jox ay tegtal yu bare ba nii leen daal na ngeen fexe ba yéen ñëpp ngeen jiitoo ko tekk ci bopp réew mi jamono jooju waalo nag benn confédération la woon boo xam ne ki nekkoon ci bopp ba mooy Lamaan Jaw amoon na yeneen i Lamaan waaye juróom-ñaari kilifa daal ñoo ngi foon gannaaw Lamaan Jaw amoon na ku naan Youssoufa Seck Bawal Sarr ah euh, Amar Gueye moo doon premier ministre bi sax Amar Gueye Amar Gueye moo jur euh, Marami Doye Gueye mi jox Njaajaan Njaay mu jël Sare Njaajaan ak Géen Njaajaan ak ñooñu moo doon premier ministre wàllo ca Mboyu Gar waaw euh, Atumaan Mboy moo yëlufoon yi daal ñi naam Gueye Jaw Gueye Seck Saare Yadd Yadd Booy ñoo yëlufoon wàllo ki nag ki doon président bi nag di Lamaan Jaw amoon doomu ndeyam sant jàkk ñu naan ko new new doom jàkk yilifoon wàll gi ci féete ci Taraza ñu naan ko gàmmaalo pey ba doon garak moom Lamaan Jaw féetewoo ci wàll wii di wàllu tey pey ba doon mboy gar ñoom ñaar ñoo ñoo yoroon présidence su confédération boobu maalo euh, maalo di vice président Lamaan Jaw di président ba ñu ne léegi nag war nañ te kenn ci bopp réew mi li ko may sa wàlli jon waxee te mu joxe woon ab lu mel na njukkal lu mel na ab fas naaru góor ñetti téeméeri lem-lemu sër benn benn benn benn waxambaane bu góor ab sënt ak ku jigéen ñu naan ko jibéer koy jàppale ci kër gi loolu la Buur Sini ci gannaaw baaxoo di ko joxe at mu jot ci tabaski ak korité loolu may si wàllu jot moo ko njëkk def jox leen ci tegtal ni kii kilifa la buur la ba nu ñëwee nag ñu war a waxtaan fekk fi benn système politique ak muy mu méngale ko confédération am président bu nekk ci bopp bi di lamaan Jaw nu ñuy fexe nag ba jël benn buur samp ko teg ko ci kaw ñu daal di waxtaan ñu seet nañ koy tëralee ban charte lañ ciy juboo ba ñuy waxtaanee waxtaanee ba mu yàgg Lamaan Jaw teg ay condition ni condition yi la bëgg su fekkee nar nañ teg buur ci bopp réew mi condition yi lañ koy lañ koy tegee muy juróom ñaari tomb yu ne waxtaanee ci constitution bu njëkk bi constitution wolof yi tomb bu njëkk bi dañu ni bu buur amee ba samp nekk ci bopp réew mi dina am beneen famille buy sës rëkk ci famille royale bi famille jàmbur lay doon ñoo xam ni ñoom ñooy ñooy nekk ñoom ñaar famille boo xam ni day dafay dafay nekk bu sës rëkk ci famille royal bi du comme yenn famille euh, européenne yi nga xam famille royale rek mooy am foofu day am di ñaari famille day am famille ak beneen famille boo xam ñoom ñoo yor exécutif bi te am ba kenn ñooy sës rëkk ci famille royale bi mu ni ñoom seen néeg di néegu wëliñ ci seen xeet ñii kon bopp lañ koy première condition mooy buur bu amee ñoom seen famille ñoo nekk deuxième famille ci ordre nobiliaire bi mooy ordre noblesse bi juboo ci loolu tomb bu njëkk bi ñaareel tomb bi mu ne bu buur amee moom suuf si mu yilif di nalew moom lamaan jaw ak lii doomam doon na di tungeen ak euh, ak fale ca ca ca gàmmaalo doomu ndeyam neew doon jàkk yilif ko nee suuf yooyu ñu yilif ñoom buur du fa jël galak buur amee du fa jël galak du fa fayu galak te ñu dëkk ci dëkk yooyu ñoom la ñuy déggal waaye du buur lañuy ñuy déggal lu ci luñ ci jëme jëme woon nag du dara lu dul buñ demee ba jamono nit ñi jubootuñu ak buur ay daw làqu mën nañu ñëw làqu si ci dëkk yooyu nga xam ni euh, ñi yilif ñi ñi ngànk nguur gi ñoo ko téye loolu ay ay kon ay contre pouvoir lañu doon prévoir ñu ni kon suuf si ñuy ñu dëkk yilif ko buur dafa fayu galak du fay feru galak du fa àtte yoon ñaareel tomb bi ñu ne gannaaw ñaar yi lamaan jaw dafa ni lépp lu ñuy àtte ci réew mi ci yoon lu jëm ci wurum mbirum rey ci gémminuk lamaan jaww lay jóge waaye du jóge ci gémminuk buur buur nag am na lu ñuy waxtu tubaab droit de grâce bu lamaan jaww àtte ni dal dafa war a dee moom sañ na ko yeewi sañ ko wala sañ na ko yombal yolomal loolu loolu loolu lañ tamit bu ñu jee ci penc yi jubóowuñu ñu yëme ko ci kaw gox yi ba ci ci tund yi ñu yóbbu ko ba ci yoonu buur buur atte bu ci ñaari wàll yi jubóowul ñiy woote ak ñiy weddi boobaa lamaan jaw mooy wéyale atte bi ci loxoom lay jaare atte bi mu yem fa ñu jubóo ci ñetti principe bi bu njëkk bi mooy sës rëkk ci famille royale bi deuxième bi mooy li mu yële fi suuf yi buur du fa amu fa dogal ñetteel bi mooy buy atte wala jëm ci mbirum rey ci ci gémminam lañ koy jaarale lañ koy wéyle ñu ni ñeentem bu bu ne buur saay na du ñu ni doomu buur mooy falu ci saa si déedéet déedéet ñun ñu seen maam yi xamuñu woon loolu du monarchie héréditaire stricte déedéet bu buur saayee dañuy néggandiku tuuti ñoom famille boobu deuxième famille boobu ñu wax ni ñoo sus rek ci famille royale ñoom ñooy téer nguur gi te jung-jung yi yilif réew mi ci diggante bi ñuy falaat beneen buur ñoom ñooy nekk buur ci jamono jooju diggante buur bi saay ak beneen buur na a falu ñoom ñoo koy téye muy muy muy ñett ñeenteel bi ñu ne bu fekkee ni ñoom téye na na nguur gi ñoom ñooy falaat beneen buur bu war a falu te danañ ci fay jëgg fukki fas wala fukki jaam lu toll luñ toll rek fukki fas ak fukki jaam ngir nguur génn seen loxo ñu jox beneen beneen buur bu war a toog te ñoom ñoo koy fal ba juboo ci ñu juboo ci ñeent yi ci tomb boobu ñu indi beneen tomb ñu ne bu fekkee ni buur falu na ak daag yi mu samp ak kàngaam yi ñu mu samp ku ci nekk di nga fay lu tollook ñaari lem-lemu sër teg ko ci loxo yi waa kër Lamaan Jaw te tabaski ak korité at mu jot daana ñëw siyaare kër Lamaan Jaw am jox leen njukkal ñoom kàngaam yi ak daag yi ñu ni bu loolu wëyee gàmmu mooy tomb mujj bi bu jotee galak lépp lu ñu fayoon ci lu ñu fay ci galak ak ci tënk gallak mooy lu ñu jël ci suuf si tënk mooy lu ñu jël ci jur gi ak lu ni mel lu ñuy méngaleeg sakat asaka loolu yëpp dañ koy dajale def ko ñetti paaj benn paaj bi luy buur bi di jariñoo ñi yore gàngoor a mag ak ak ak ngaloom beneen pàcc bi ñu jëmale ko ci gàmmu gi ndaxte jamono jooju dañuy gàmmu bu bu ci noppee ñetteelu pàcc bi nañoo yox ko jàmbur yi ca waalo nag jàmbur yi ñii la woon ci jamono jo ba lamaan jaw wëyee dañuy soppi cër yi ñu tuddee ko jaw din ak jogomaay ak maalo ñu jóge ci waa kër lamaan jaw jaw din mi ngi jóge ci baatu pulaar jaago din jóge cosaanu ci jaago do moo ki yilif suuf si jogomaay jóge ci jaago maayo jaago maayo ki yilif ndox mi maalo nag mooy mooy ki yoroon alal ji ñett ñi soo ko leen méngalee mën nañuy wax ni jawdin gannaaw chef d'état moom mooy le président du conseil ñuy wax premier ministre ci royaume Angleterre yeeg yooyu mooy yore en charge de l'exécutif moom mooy gouverner cër bi mu gën a njëkk yore bu mu gën a yore mooy justice gannaaw justice bi nag euh, am exécutif contre intérieur moo ko yor jagoma jagomaa yi nag mooy président de l' assemblée bokkul ak président du conseil moom mbooloo jàmbur yi moo leen di présider mooy seen doyen te buur buy buy buy recevoir buy daloo daloo nit ñi ci kër jagomaa yi la leen di daloo maalo nag mooy équivalent li ñu mën wax euh, euh, président de la cour des comptes moom mooy xam alal yi ku ci nekk la nga am ak alal yi fu ma jaar mu génn ak ku ak ku ñu waree a dindi sa alal mooy ñett ñi. ci seen biir nag lépp luy jàmbur mooy képp ñëpp ñoo xam am nañu yilif nañ seen bopp am suuf am cër ci réew mi am nañ fa suuf ay tool wala jur ñoo ñëpp lañuy wax jàmbur muy ñii nga xam ne dañuy dañ ay sédentaire lañu dëkk ñi dëkk ak ñii nga xam ne ay nomade lañu mooy ñu ñu ñu ñu ñi nga xam dañuy mànga di dem ak di ñëw ñoo leen sebe ak baafoor moo lañu indi yàq ni sebe ak bawoor sebe mooy mooy sédentaire yi Baafuur mooy ñi cosaanoo ci gànnaar ay naar la ñu woon xaw a rax ci yawut ak pël ñii ñooy cosaanu euh, foofu jàmbur yi ca waalo assemblée boobu nag Sëb ak boobu ñett ñi ñoo nekkoon ci bopp ba kii doyen bi président assemblée bi Jogomaay Maalo yore compte yi trésorier public bi Jawdin yore exécutif bi moom moom moo yore tamit armée nationale bi armée nationale bi soo ko déggee mooy armée conscription mooy ñi nga xam ni dañuy woote tëgg lam gorong yi ci ci ci gox yi tëgg làmb yi ci tund yi woote fu fukki jam euh, fukki waxambaane taxaw ñu jël ca kenn ñooñu armée nationale armée de conscription bu ñuy jëlee ci réew mi ak ah, kooku jawdin moo ko yëlif waaye am na benn armée professionnelle boo xam ni ñoo wax jam galo yi jam galo yi boo ko déggee mooy ñi nga xam ci moomeel nguur gi buur moomu leen waaye nguur gi moo leen moom bu fi buur jógee rek keneen ku fu ñëw fii la leen di fekk fii leen baax ma jam bàyyi fekkatil fii la leen di fekk fii nga leen di baax ñoo ñoo ngi cosaanoo ci ñi may sa wàllu jon ak lamañ doon jox njaajaan njaay tabaski korité mooy ñooñu sent euh, sant yooyu xale yu yore fas yi di toppatoo fas yi ak jibéer yi ci ñooñ seen séente lañ ñooñ jógee ngàll googu ba ñoom nag ñoo ñoo fi taxawal nguur gi am na kooku nag ñooñu nag armée boobu nag ku ñu naan bëkk nekk njurbel ci wàllu moo ko daan yilif mooy la garde royale bëkk nekk jurbel ñi ci gën a xereñ gën a dëgër ñoo doon ñoo yor xare bi ñi ci ñi ci xawoon ak xaw tuuti wala taxu leen am doole ñoom ñoo féetewoo tool yi ci dàgg yi dàgg yi ay dëkk la yoo xam ni euh, tool yi fa nekk buur lañ koy jagleel am lu muy dundee. waalo nag kon euh, ñii gannaaw ñii amoon tamit bëkk nekk njurbel bu ñu daan fal nag barak du yem ci moom rek fal ko dañuy am ñu sës rëkk ci moom bokk ci sàmba lingeer yi ku mel na kàjj ak bëriyoog ak baje ñooñu ay sàmba lingeer ñu maanaam dañuy bokk ci néegu garmi sant mbóoj teg ci si ndaxte jamono boobu pour ñu fal la pour nga mën a wuyoo la wax jung-jung da ngay sant santu ki ci cosaane réew mi xam na ni nag waalo njaajan njaay moo ci njëkk nekk barak waaye bu mu gàddaayee doomu ndeyam barka boo la fa wacc mooy maamuñu sant mbóoj moo tax ñu ñu laaj nga sant mbóoj waaye nga bokk ci ñetti néeg yii muy loogar tëjeeg ak joos boo ci bokk ci ñetti néeg yi sant mbóoj ñu ni garmi nga garmi nga bu fekkee sa yaay it mbóoj la sant gannaaw ba sa baay santee mbóoj sa yaay di garmi sa baay tamit di garmi ci néegu ndeyam ñu ni la garmi garaara garmi garaara mooy ko xam bàyyi ba mën na falu ndey ji bu doon góor mën na falu yow nga juddu ci ñaar yooyu ñu la garmi garaara double condition yi sa sa ñaari waaju remplir waaye garmi lu tax mu doy rek mu sa yaay mënata sant bu fekkee ni nàmp na ci ñeenti néeg yi rek yi nekk garmi yi falu sa baay askanoo ci wàllu santam lu ko sant bi firndeel ko ci ci meññee fi réew mi ñaari condition yi rek moo tax doon garmi waaw lu am yeneen conditions yi garmi garaaraa nag daf koy gën a feddali waaw ñu ñetti sàmba lingeer yi gannaaw barak mën nañu wuutu barak bu fekkee nii barak dafa xaw tële lu naan incapacité ah mën na fekk mu feebar wala dara wala mu am lu ko jot ba du mën a yëlif réew mi boobaa ñi sës rëkk ci moom muy kàjj mooy mooy premier héritier mën na mën na ko wuutu ci bopp réew mi bu kàjj fu ñu demee ñoom ñaar xare ñu jam leen bër war na war na leen wutu bër yóbbu ba leen wéyu la ñetti réew yëpp daanaka ci ci ci Sénégal fu ñu falee buur dañu am ñett ñu mel noonu soo demee Kajoor di nga gis noonu eh, jàmboor béjjën ak bu muy nguraan ah, soo demee Bawal it noonu di nga fekk bërjaak di nga fa fekk euh, Bébéyaar ak Lamassas noonu boo demee ci Siin it di fa fekk lu naan Bumi euh, Cilaas ak Lul soo demee Jolof di nga fa tuubee Bumi Bërgam noonu la nga ko tëlee Fuuta da nga fekk Kamalinku Kamalinku mooy moo ko mën wut waaye ñun si maam yi ñii nga xam ne ñoo sañ a wuutu buur ci jamono bu buur xawee tële wóor ni ñoo koy donn bu buur dee. bu buur deyee nguur gi dañ koy tegg ci loxo bi jox ko ki yilif kuréelu jàmbur gi mu ki nekk ci bopp njàmbur gi ndax boobu jar na leeral fii nii ñen ñetti institution la ñu amoon ci jamono ji ba seen i constitution mooy dafa am lu ñuy wax njàmbur ak lu ngar mi mooy mooy les éligibles ñi mën a jiite réew te seen juddu may leen ko jamono jooju du du jàng rek mooy tax jot réew walla mën da ngay jig dangay jig réew te rawaani nguur it nga juddoo ci parce que nguur dafa daan laaj ay rawaan rawaan yooyu ñooy waral bu ñu falee buur ñu am bu ko jiitalee bu jiitoo nekk ci bopp xare bi am ndam ay rawaan ñoo ko daan ñoo ko daan def ci ci ci ci garmi yi wala boog bu ñu nekk ci bopp réew mu meññ mu taw kon ndam ak naat ñaar yi ay rawaanu nguur ñoo ko doon def te dafa amoon ñu ko daan donn ci seen i juddu moo tax ñu di ko daan seet ci baatin seen ci néeg bi ñu ne dañ koy seet ci baat yi ndax jig na wala du jig réew kon condition yooyu dañ ko daan seet balaa ñu lay dénk réew duñ ne mën nga jàng rek mën nga tari rek wala mën nga doxal rek ñu déedéet njàmbur yi ñoom dañuy war a war dañaa yeewu mën muus mën a doxal waaye buur bi nekk bopp day mën a jig réew condition ñu seet nag garmi yi ñan la la wax yi jung yi ngi taxaw ñu seet ku ci nekk ku ci gën a ëpp baax ku ci gën a ëpp ñu def seen élection foofu seen ku ñuy fal ak ñu ñuy sembi gannaaw ngarmi gi njàmbur gi mooy ñëpp ñu dëkk ci réew mi yilif seen bopp moom fi suuf buur fekk leen fi ñooñu doonoon seen suuf cosaanoo ci lamaan yi wala wala ci leneen wala ci ardu yi ñoo ñoo yilif suuf si moom ko loolu wax njàmbur gi ngallo gi nag mooy wàll wi nga xam ni nit ñi dañuy taxawee dañuy lépp luy yilif mooy luy doxal réew ñoom noonu la ñuy taxawee waaye ñoom nguur gi ñoo leen moo leen moom buur moomu leen nguur gi moo leen moom ñooy saytu réew mi ci moomeel moomeel moomeel gi la ñu bokk waaye waaye euh, suuf mën a doon suuf mën a doon jur mën a doon ay jaam ñi ñëpp ci ngàllo gi ki nekk ci bopp nag farba lay wuyoo ñaare ki nekk ci boppu njàmbur gi nag jaraaf lay wuyoo ki nekk ci boppu réew nag muy buur ak nu mu gën tuddee soo demee Kajoor Barak la euh, Waalo Barak la euh, Kajoor Damel la Bawol Teeñ la bër Maad la ca Siin bër Saalum la ca Saalum Buurba Jolof la ca Jolof Saatigi la ca Fuuta Euh, Mansa Bala ca ca Gaabu ah, ni nga gisee nag euh, réew waalo tëddee nii la ko jolofak Kajoor ak Bawol tëddee soo demee Kajoor di nga fekk damer dañ koy fal ci condition yi ma wax day bokk da war a doon garmi ak nu moo juddoo sant faal boobu am na ñetti kër yuñ ci yuñ ci taamu surtout si Déthié Foundiougu wala rawatin ci taw doomu Amari Ngoone Sobel ndaxte Déthié Foundiougu am na yeneen doom waaye ñooñu fal wuñ ñii falu damel ci ñii sotoo ci Amari Ngoone Sobel mi xeex dànki moom meññ nag ñetti kër yi di kaa Faal Maajoor ñoo mag Faal ca ak Faal ca Yaasin ñooñu lasuka bi moo indi Kajoor ci gannaaw mooy deuxième damel teñ mooy lasuka bi premier mooy Amari Ngoone Sobel ñii suñu bokkee ci kër yi dañu bokk ci wala bokk ci ay néeg néegu garmi nee naa ci waalo ñetti néeg yooyu ñu ci waalo waaye Kajoor ñi fu njëkkoon néeg néeg yu falu ci lamaan ñi ci soño la ñu bokkoon gannaaw soño yi nag mu yooyu ñëw mu yooyu ne ñu dañuy rax ci ci logar yi ñoo ko logar yi yi benn la ñaar ñi ñoo dox jamono ba wàggudu dugg ñetteel leen ci jamono Amari Ngoone Sobel Amari moo njëkk nekk wàggudu ci moom lu mujj gannaaw na soño yi ak mu yooyu di taxul déw ba galawaar ñëw ci jamono doomu maajoor Fatim Gole ma xaruja ma xaruja kumba joojoo ñu jëli woon Saalum ñëw wàllu si eh, ba ko Yaasin bu woo woo ñu xeex Xaali Njaay Sàll kooku moo njëkkante Gelwaar indi fi nag néegub Dorobe ndaxte eh, soxnaam bi la dooro bi ak Logar dugg ba jamonoy géej dugg béy sax falu na kenn la muy deccaloo Basin Suura kooku dafa dafa dafa eh, buri njàmbal gumba ñu folli ko waaye du woon juróomi néeg la ñuy tànn déedéet dañu mujj nekk juróom-ñaar waaye du woon juróom-ñaar ca cosaan ñaar soño ak muyoy la waggadu dugg waggadu ci yam ci ñeneen ñi gëlawaar ak dooro beeg ñeneen soog a ñëw ak géej soog a ñëw waaw foofu tamit euh, dammel ah, am na ñuy suñ ko falee am na ñu sës rek ci moom comme ni mu ko waxee mooy buumi nguraan ak béjjën nag jàmbur ci loor am na tamit ñu may fal ñu may tab ay kàngaam gannaaw ñoo ñi ay jàmbur ñu may tab wala ñoo xam ni ay tàñ lañu maanaam ci néegu garmi lañu bokk ci ndey waaye bokkuñu ñu ci kër seen kër baay wala ñuy doomi buur sant Fall waaye bokkuñu ñu ci néegu ndey ñooñu tamit daan leen tabb ci ci ay jox leen ay ay ay ay ay tund nekk ci boobu ñu wuyu kàngaam kàngaam mooy mooy administration ñu sës rek ci fii nag ci Kajoor euh, ci cosaan jàmbur yi ki nekkoon ci bopp ba moo doon laman jamatil ak ak laman palen déd laman palen déd moo doon président laman jamatil di vice président ba Laman Palin tëdd nekk dameel nag ci li ñuy fa indi jawriñ mbul Amari Ngoone Sobel moo ko moo ko moo ko indi jox ko exécutif mu nekk président du conseil chef de l' exécutif dëkk mbul ñu naan ko jawriñ mbul njàmbur parce que jawriñ mbul njaar la dafa am jawriñ mbul njàmbur ak jawriñ mbul ngallo ki nekk ci boppu njàmbur ak ci boppu ngallo gi Laman Jamatil nag mooy président assemblée bi mooy yilif sénat bi maanaam mooy président du sénat am na ñeneen bootalu bu gàtteeñ am na am na am na am na bootalu bootalu bu njóob baje gàtteeñ Eliman Kob ak ñeneen ñii ñooy ñooy dignitaires yi yilif conseil bi nga xam mën nga wax ni conseil constitutionnel la ñu nekk bu ñu dajee ñoom conseil constitutionnel parce que ñoom ñooy arrêté liste candidat yi parce que conseil constitutionnel xam nga ci élection bu demee bu ci constitution Sénégal trente jours balaa ñuy def euh, élection yi ñoom ñooy arrêté candidature ñi ñii ñooy dem ñii ñorul dem noon la demee ñii tamit ñoom ñooy arrêté candidature am ñu ni ñu ni taayaal ñii du ñu bokk ñii ñooy bokk ba ñoom ñooy désigné parce que conseil constitutionnel tamit c'est mooy def lu ñuy wax déclaration définitive de résultat décla après déclaration provisoire bi nga xam ne ONEL moo koy def ñii tamit ñoom ñooy ñoom ñooy joxoñ ñi kii moo falu kon dañuy dox euh, lu conseil conseil lu dox daan ko dox bu ñu fal buur soo demee Jolof ndaxte Jolof nag moo meññ yi yëpp euh, ki yilif bu ñu nekk ci boppu njaamur gi jaraaf ju rëy lay wuyoo ki yilif ngallo gi di Farba ju rëy buur ba Jolof yilif ngarmi gi jaraaf ju rëy nag kis ki ki ñu ki sës rëkk ci moom mooy jaraaf satle jaraaf satle mën nañuy wax ni moo rôle am nuroo naag procureur de la république ci réew mi ndaxte lépp lu ñu tawat ak lu ñu jooytu ci wàllu yoon moom moo koy wax ci kanam buur ci penc bu mag at mu jot wax lu réew mi ay lépp lu ñu lu ñu jooytu daal ci wàllum yoon moom koy wax doléance yi ak bu fekkee nii dañuy dafa am kàngaam bu def jéeya maanaam kenn ku ku bokk ci classe politique bi wala ci administration bu def jéeya ñemewuñ ko joxañ jaraaf jaraaf satle mooy kii sat satle mooy kii sat mooy satle jaraaf ju mooy taxaw wax ko ci ci kanamu penc mi yëpp buur toog ñu war ko ci saa si jaraaf ju rëy nag moom rek moo sañ a atte fu fu yoon fu fu dee war a fu ñu war a atte dee moom moo koy moom moo koy wax moo koy dogal jaraaf ju rëy moom moo yore mooy chancelier bi yore justice am na jaraaf ndoj kooku ndoj fa na njëkk sang euh, Sare Njaajaan Njaay benn dëkk benn doj moo fa nekkoon fa lañ ko dëj sang ko njaasiw ñu samp fa benn jaraaf moo yore baax yi foofu am na jarno jarno it kenn ci yee kooku ci ci ci ci ci ñi li bokk ak bëjëk am na bëjëk am na am na ñoole ak ak ñeneen bu ñuy fal buur nag ca Jolof jaraaf yi dañuy daje débbi géej fekk jàmbur yi waxtaan nañ ci tur yi ci ci pénc yi ñu juboo ñu ci tur yi ñu dem ba ci ci gox yi jaraaf yi dajale jaraafa gox yi dajale tur yi yëpp waxtaan ci jaraafa gox yi yébal ko jaraafa tund yi ñooñu waxtaan ñoo ñëw ñu daje ci jaraaf yu mag yi di juróom-ñaari jaraaf yi ñu ñoom ñoom ñu tëju doyoo ci débbi géej waxtaan ci tur yi ak ñu ñuy te war a taayal ak ñu war a dem bu ñu demee waxtaan ba juboo ba dajale yeneen yeneen kilifa ba juboo ci tur ñu yebal jaraaf satle ak jarno ñu fekk la wax jung ji mu ñu fal ñu fekk ko joxoñ ko ni ko ndaw daali naam njaay buñ ko joxoñee jarno takkal ko la mu xaalis satle moo naa ko jara daali naam njaay joxoñ ko satle jarno takkal ko la mu xaalis bi ñu tëgal ko juróom-ñaari galang galang juróom-ñaari galang lañ koy tëgal bu njëkk bi bu jibee ba tëgg dafa naan bilaay ku waxul ku waxam waxam dootul daña ngi nii ku dootul dell gannaaw a ngi nii ñaareel garan ku ku dootul dox wéet a ngi nii ku dootul lekk wéet a ngi nii ku doon na barke barke barke Abu Dardaay ki dekkal bayre mbañ singa singaan ki yilif réew mi dégg daal juróom-ñaari galan am na sax ay aaya yuñ ci daan boole ah fallaahu wali wa yuhyil mawta wa huwa kulli shay'in qadir قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير di ko di ko def juróom ñaar bu ci nekk kulli shayin qadr jaahil malaykatu et cetera ba ci tabaraka lazi bi yadil mulku huwa ala kulli shayin qadr mooy ba ko juróom ñaareel ñu bàkk ko tëgg ko loolu sax da nga gis ci sëriñ Ndakaaru dañ ko jëlee ci josaani jolof yi tamit bu ñu ko falee daañ ko tëggal juróom-ñaari galang ak ay juróom-ñaari aaya yu ci toftale bu ñu ko defalee loolu ba tëgg ñëpp ñu ñu toog ba dégg juróom-ñaari gaal dootuñu falu moo ñu bëgg ñu ba ñu bari ba ñu bëgg a falu dañuy day gaaw a daw balaa ñu ñu juróom-ñaari gàll ngi di jëm wax bu leen fa fekkee ñu dégg ko ba mu mat rek dootuñu falu mukk dafa gàll lii lu lu ci baatin bu ko defee nag bu loolu wëyee ñu daal di euh, jël buur bi yóbbu ko njaasew njaasew xam nga maam Njaajaan Njaay ci ci wàllu la liggéey déggu njaasew la feeñee ay ba mu faloo ndox moomu nekkoon njaasew di ndox dañ ci daan tànq indi ko ba ci lu wetu cëng parce que moom Njaayeen Saabuur la sancoon wetu cëng moom foofu nag euh, dégg dégg bu naan yanoore ndox moomu yëpp jógee njaasew ci déggu Njaay yanoore bi lañ koy indil ba war xaw nekkee pay ñu yóbbu ko ci déggu mbay foofu la ndox moomu la doon wëgg tànqee am fu fu fu ñu falee buur ñu gas benn mbënn boo xam dina def 3 mètres de profondeur 3 mètres de profondeur ak 1 mètre de largeur ñu am benn doj buy def ci biir ah am benn sendal moom mu dugg ci biir nag ñu wërale ko ay këll yoo xam lii dafay xaalis lii ay ay ay ay koraay ah, lii ay pepp lii ay béréef béréef lii def ay ay sëb hmm, ak yu ni mel yëpp ñu def ci ndox fekk ndox mi sekk bi mbënn mi tànq ni ndoxu njaasew def ci ñu sang ko léegi ko ci génne ko bu bu génne nag daan fa ji daan fa ji ay pepp yëpp set seet meññeef fi nu mooy demee ndax di nguuram dina barkeel am déet dina toog jaaru bu jaaroo fekk mu armal jublu penku armal lu weex tàll ñu teg ko ci fas woowee ñu teg ko ci fas jubal ko ci ci pay ma mu war fa ñu ñu boof ko fa juróom-ñetti fan wala ñetti fan en cas d'urgence ñetti fan guddi ajuma lay dugg ba guddi ajuma dellu si muy huit jours juróom-ñaari juróom-ñetti fan bu fekkee ne cas d'urgence xare dafa nar am ci réew mi wala dara ñetti fan dañ koy gàttal ñetti fan mu dugg guddi ajuma génn guddi altine bu duggee xeloo boobu dugg ñu dàmb nañ ko dàmb dàmb nañ ko boobu ay baax yu bari daan ko defal ay ci wàllu ay meññeef yeeg yu ay xaatim ak lu nekk daan ko ci defal bu génnee nag boobaa nag ñu dëj ko mu ñu dëj ko far samp ko jox ko jox ko baax yi ñu ko war a jox nag ñeent fukki fan réew mi guddi ni tëgg di tëgg ay làmb ay xeec ak yooyu bu àpp boobu jeexee diir boobu jeexee mu tabb kàngaar yi dina fal tuube fal fal fal bërgaam bëllëb bërgël ak ñëpp ñu mu war a fal kàngaam yi ko dara conseil conseil jaraaf yi nag nekk fii juróom-ñaari di ko contrôler jaraaf ju rëy yër exécutif bi buur jamono yi réew yëpp bu demee ba afa amoon daan mënoon ko folli bu fekkee dem na ba dafa jéggi dayo ci nguuram dafa wane excès de pouvoir wala mu nooy loolu ñu xam ni luñ ko dénk mënu ko yor wala ñu gis ni amul laay gis dafa toog rek euh, réew mi daal bekkoor am fii wala dara doxul wala réew mi eh, du am ndam ñu ni kii amul njiglaay wala mu am lu wàññee ci ay cëram moo xam ci xelam wala ci cëram lu wàññee ko ci moom bu ñu ko daan gis rek eh, jaraaf am mën naan na guddi bu jotee mu tëggulu benn ndënd jiin ku ko dégg ci guddi gi boo yeewoo mën nga folli buur mën nga ko rey sax ku ko fekkee war fi fanaan war fi fanaan war na wala bokk wóoloo doole mu toog bu ko nawleem fekkee ak xareem mu xeex yàlla atte mu dee wala mu wala mu gàddaay rek ñu ko appal nag nii dañ koy fal dañ koy fal waaye du ko appal comme ay na ay quinquennat déedéet app bi day wëy rek daan wax ni diir ni yaa ngi aw yoon liñ la wóolu yaa ngi koy yore nu mu waree di ñu jox sa giiru dund waaye la ko mooy nu gisee ni daal am na naqar ak benki ñenki lu feeñ sa digganteek waa réew mi daañu wut pexe loolu daan ko ko waxal daan ko ko yëgal bu baax waaye balaa mu ñu koy dëj mu xam ko ki koy sañ a folli ak folli nag di jaraaf ju rëy kooku jaraaf buur munu ko folli benn yoon mu falu lu ñuy wax inamovible comme lu naan magistrat yi dañuy inamovible dafay inamovible day dem rek buur mënu ko folli waaye buñ koy fali liste la ñuy propo jàmbur yi liste la ñuy jox ko buur mën nañ tabb noonu soo demee Saalum jaraaf yu ndaw yi dañuy dañuy daj dañuy benn liste ñu fal ku ñu fal bitéw bu ci buur àndee ci bisu bitew yooyu mu tabb kooku bitew bu ci àndul du ko du ci ànd bitew nag moom moo mën a nekk jaraaf bu ndaw jaraaf bu ndaw moom moo nekk jaraaf Saalum far ba juree nag far bu far far ba juree ca ca mën na teg damay nekk jaraaf jaraaf Saalum concurrent concurremment ak ak jaraaf bu ndaw jaraaf bu ndaw lay wax jaraaf wolof ci Saalum waaye bitew ngay doon wala bokk far ba juree nga nekk jaraaf bu ndaw. jaraaf bu ndaw nag automatiquement bu jaraaf dee rek moom mooy nekk jaraaf jurëñ aussitôt jaraaf Saloum buur du ko du ko choisir ki sës rek ci jaraaf mooy nekk jaraaf soo demee Jolof euh, ñi ñi ñi ñi toftalu ci ci ci ngaraaf gi mooy ñi sant Jaw ñi sant Jeng waaye am na jamono ñi sant Si falu nunu ñi sant Léy tamit falu na ak ñi sant Ñang yi def ni loolu njaraaf gi ngaraaf gi parba euh, parba bi nag ñi nekk farba kooku day doon Euh, soo ko ñaaree benn officier lay doon mooy mooy mën na ko méngale ak chef général des far bu Diourey moom mooy moom mooy yore défense bi mooy yëlif lépp luy armée ak territoire territoire bi suuf si am na ñu sës ci moom ku mel na fara sëf ku mel na fara sëf fara sëf mooy eh, mooy chef d'état-major inter arme wala intendant général des forces armées moom mooy su suñuy suñuy jël galak moom moo koy jëli indi ko ba ci ba ci buntu pay bi jaraaf buntu kër jël ko ñu bàyyi ko far biir kër far biir kër mooy chef d'état-major particulier moom mooy yor butin bi arsenal militaire bi trésor bi réew mi nag nii la tëddee woon ci ci ci wàllu baax ci cosaan ñu koy wëlee noonu ci muy genre monarchie elective boo xam ni di c'est très démocratique ba jamono 1848 ba ñu déclaré abolition de l'esclavage gouverneur ñoom Baudin ñu fi nekkoon ñu indi nag suffrage euh, ñu indi suffrage universel ci quatre communes yi ah di di Gorée euh, Saint-Louis ak Rufisque waaw tubaab yeeg métis yeeg ñu fal kon mbokk yi seetaan seen émission démb gis ngeen sunu maam yi ni ñu daan fale ak a folle mu nekkoon euh, lu yàgg waaye amoon lool démocratie ndax Sénégal démocratie daf fi yàgg lool noonu nag noonu la ñu daan fale ci biir royaume yi fi nekkoon ba bi tubaab bi ñëw 1848 di ñu indil nag seen constitution et ñuy ñaanal nag ñi nga xam ni ñooy seetaan émission démb te bëgg seen cosaan ñoom ñëpp ñu ngi leen ñaanal bon et heureuse année. ma ciy profité di nuyu rek suñu ñoo xam ni dañoo bokk ci club xam sa bopp du Diop di taalibe sëriñ Habib moom sëriñ fàllu Mbacké nekk ci port ñu ngi koy ziar di nuyu sëriñ Ibra mbay Longor moom nga xam ne moom it suñu xarit la te ku bëgg émission démb la ñu di leen ñaanal ñoom ñëpp ak ñëpp ñuy seetaan télé bi ak euh, borom kër gi El Hadj euh, Ndiaye ak soxna Marème Ndiaye euh, ñu di leen ñaanal bonne et heureuse année et di ñaanal nag. koo xam ne wax dëgg yàlla moom émission démb bi tàmbalee ba léegi moo koy monté muy Moussa gis ngeen ni émission bi lim ciy génne di leen won lépp lu ñuy wax loolu liggéeyu Moussa la ñu ngi koy ñaanal moom it bonne et heureuse année di ñaanal particulièrement nag euh, ki nga xam ni mooy am nga xam ni moom wax dëgg yàlla lu bare bari man moo ma koy jàngal te moom laa njëkk a tàmbaleel fii moom it ma di ko souhaité bonne et heureuse année 2012 di ko ñaanal waa Sénégal yëpp kon nag ki leen doon présenté émission bi di seen xarit El Hadji Tall Ngol Ngol ñu di leen jox daje incha allahu beneen yoon ci beneen numéro.